Rewmi 24 TV bismillah dal leen ak jàmm ci lundi 29 janvier 2024 mu mel ne rek fi mu toll nii ñi nga xamante ne ñoom la ñu téye eh, woon prison ba ñu ngi leen di bàyyi ndànk-ndànk ndax bu ñu xoolee tey jii ki nga xamante ne rek mooy Abdoulaye Gueye daal dinañ koy libéré waaye it Lamine Niass daal dinañ koy rek libéré ak ki nga xamante rek mooy Khalil Ndaw daal dinañ koy libéré ak yeneen eh, détenu politique yoo xamante ne rek daal dinañ leen di libéré tey jii tombé ak lundi mu doon loo xamante ne rek nouvelle bu neex a neex la nañu génne ci prison ba lool waaye mu doon ay détenu yoo xamante ne rek lañu leen jàppee ba tey rek kenn mënul comprendre waaye daal fii ñuy wax ak yéen ni ki ñu ci gën a ràññee rek mooy Ablaye Gueye ak Lamine Niass ak ki nga xamante ne rek moom mooy Khalil Ndao ñooñee jamono yi daal dinañ leen rek ñu di rek jubali seen ay famille mu di rek ñu bare bari ña ngay sàkku rek ñu gën a libéré ndax kat prisonniers yi dañoo fees dellu foofu nag te ña ëpp rek du ñenn ñu dul waa Pastef kon dal fi ñuy wax ak yéen ni Lamine Niass moom ak Abdoulaye Gueye ak Khalil Ndao daal dinañ leen di bien.